yow sama kilifa gi doomu xam préparé woon naa samay lettre ci njiit yi ak gouverneur yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi jàngal ma dégg lettre bi tey ginnaaw ba ma bindee ba pare dama ni da sole daal dajaloo leen yónni yónni leen soldaar yi nañ yóbbaale seeni i seeni seen seen gànnaay seeni fas seen waral ñu dàqi jaam ba nga xam ne ibrahim la ñi nga xam ni jaam yi nga xam dañoo dañoo bañ a toog seen yàlla seen yàlla ju mag bi loolu nag dañ ko woyof woyofaluñ ko waaye lu tuuti la ci ñu lu oyof la ci ñu waaye pour not suñu kii lu rëy la nag awlaaya alfirawna yow yow firawna mu màgg mi baab alilahi raisu majmua nekk na ci buntu yàlla ji ki jiite ki nga xam ni ñoom ñoo de ñoo doon bind ak a saytu li fi buur bi bàyyi muy kilifa gi bàyyi muy naafiya ñi nga xam ne ñoom lañ dénkoon ñuy saytu loolu loo ëndaale sama kilifa gi yàlla gi seen xuddaal kilifa googu alal alal alalay anaafiya yëpp jël nañu dem naa di ko xool di ko saytu gis naa ne alal jëpp jël na ko yóbbu na ko jaay napp sax pale ñetti fan a ngi nii ñaari fan a ngi nii kenn gis ko daa daw dem yoonam moom seen xóot baax na mën ngaa dellu dégg naa la amaan cay amaan tuskare ñeel na la ana say gët ana ñi la doon xoolal say encens secret ana ñu alal yaa ngi noonu seen xur jël fas yéene ko nag yóbbu ci yonte yàlla Moussa alayhi salaam ndeysaan alal ji moom la fi naafiyaa bàyyi woon or yaag yépp waaw gis nga noonu ñooñu la seen yebal pour mu jox ko Moussa ndax Moussa day waaj a génn ngir mu dimbale ko ci mu ngoog seen xut a ngi noonu yaa karim yow mi yàlla waxal muy Moussa Haaruna ak ñi mu àndal jox naa leen sama alal ji ngir ngeen mën koo dimbali ko bëggoon naa leen a jox nag li ma yor lépp waaye damay préparé pour daw firawna ak Haamaan damay bëgg a dem li des sama dund daal maa ngi ko bëgg a du ji ca màkkatal mukarram ca té ca néegub yàlla ba allahu akbar bu ko defee li ma dimbali koo li ma desee ci alal dimbali ci waa banu Ismaayil ñëpp waaye tamit ma matal la nga xam ni sama sœur bi yéene woon na ko nga xam ni moo la yar dee dikkal na ko moom laata muy préparé yére yére ju bees ngir kaaba ga mooy mattalil ko yéeneem ñi ngi lay ndokkeel yow seen xóot li nga def rafet na li nga gis rafet na yow mi yàlla waxal Moussa damaa yàkkamti damaa bëgg a de de jiitu li ndax ndax ndax dinaa am an ëll ànd ak ànd ak yow ëllëg ca yàlla Moussa nee na yàlla may na la di nga ànd ak man ci àdduna ànd ak man ci àllaaxira ci àjjana yow danañ la dekkal nga ànd ak niir yonent yàlla Yuusuf sa li des ci daawaam mu Yuusuf yow da koo fekk ci bokkoon nga ca moo tax ñooñu lañ lay boole bi may judd fanaan fekk naa la nga nekk ab jullit danañ la seedeel ca wax yu yàlla ba yow yaay mu ku jëm ci waa euh, euh, njabootu firawna maa ngi sant yàlla di ko bàkk di ko kañ ndax mën naa leen a xaar ca yoon wax ca côté sowu ga bu ngeen di dem ndax mën naa xaar ànd ak yéen Moussa nee na mën ngaa dem rek yàlla na nga na la barkeb yàlla gunge ñun feneen ba ca côté géej ga lañuy ñuy jaare ji allahu akbar kon duñ bokk yoon ndax dangeen di fajaru dem cay ama salli ala sayidina muhammad wa sallim yaqulu lak laa ilaha illa naam Moussa nee na waaw waaw noonu lañ ma ma yàlla digal ma def ko yàlla neen wax yu nañ Moussa ak mu ànd ak sama jaam yi mooy waa banu Israayil waaw ndax dana leen topp de dem leen gaaw Firawna dana leen topp mbokk yi daa mel ni naa ngi noonu di préparé yëg na ni Moussa départ na yow sama kilifa gi doomu Haamun tey nag jaam yi Moussa ak ñoom andal daw na ñetti fan a ngi nii kon fan yooyu ñu waxoon lañ fay def muy feet ga dañuy ñëwaat ñëwaatuñu fa lañ jaaree dem seen yoon feet gañ la waxoon dañ faa jaare dem idan farru kama tawaqa'na wastahaqu al-uquba kon ñun nañ ko jàppe woon noonu la dañoo daw daw nañ de daw toppi rek waaye nag faaw ñu mbugal mbugal mu tar ndax jaam yépp dañuy bàyyi xel ndax xool ndax nañ leen di jàppe ñoom ñu daw ñooñu danaa leen def loo xam ne ak waaru la pour ñëpp ban yoon lañ jaar ca sow ba lañ jaar suñ bëggoon kon jëmuñu saam bu ñu fa bëggoon kon kon ca chamal euh, ba la ñuy jaar non ci ci dex gi lañuy jaar ci su ci géej gi dañoo bëgg a jëm naxlul aqaba kon tefes gi lañ jël nañ leen gaawee nañ gaaw dabi leen bala ñu bala ñu rëcc ca Corée Sina lañ leen di kari nañ jaare foofu ñun dama leen a bëgg a ca géej ga ndax ñu mën a lab benn benn ñu ñu ñu dee wala ñu lab rek yow ministre bu mag yow mi nga xam ne yow lañ wóolu ci waxu yàlla gi amoon yaa may wuutu ci dëkk bi cay loolu rek la bëgg a dégg kon yow yaa ma fi wutu ma ngi koy jox ndono la nag ndénkaan la déglu leen fii nekk na ci kees gii sama ndénkaan sama sekkare yi ndàmb li mi ngi fii sekkare la nag dundal dund ko sax di ko sax dàkk yàlla yëpp di di bëgg ci yow suuf si tàllalu fekk foo loolu ñu romb la fekk leer gaa ngi lay topp yàlla na la aar kon déglu leen fii leen ko wax hmm? lii du lu ndaw de du lu ndaw de xamun na aar waa ruuxu doomam ji gis nga firaaw naay noonu génn topp na gaay tàmbalee tur mi yërëm jaam ji at nag alaxeer ñu génne leen ci seen tool ya ak seen dex ak ci seen pale yaa nga xamee ne farañ lañ dencoon seen alal jëpp yàlla dëggu na kon mbokk yi gis nga naa génn na nit Moussa yaa ngi noonu di dem waaye na topp na leen na topp na leen ndeysaan ñoom ña xool ki mooy mu Firawna ñëw na àndaal soldaar yi Firawna andi na ay soldaar ñu ngi ñuy topp de ñoon danañu dab danañu dab waay awaay danañu dab waay fii nag ku sa pas-pas dëgëru da di nga rëcc ñu ngi laam tàmbali tur yàlla mi yërëm jaam ci àdduna ak na Firawna topp leen ca fajar ga ba ñaari mbooyo looyee dajaloo nag gisante njabootu Moussa naan ay waay Moussa danañu dab waay Moussa ni leen mukk duñu Moussa dab ma yàllaa ngi ànd ak man mi may sàmm allahu akbar waaye ñu xool fii eyeen sama nit xanaa amu leen confiance ci seen yonent Moussa ku dëgg ku wóor la xanaa déggu leen mu leen di wax ni dal leen sax leen ca gëm yàlla aha kay sama borom ànd naa ak man dina ma teg ci yoon weew ana sa borom suñ borom sa borom lu mu ñu mënal tey gaa ngay génn say borom bu amee yoon muñ mën a jaar li alkaande gi gal duñ ak jaaxale gi duñ ci dugal daf ñuy wax naan ana sa borom bi ci géej gi lay jóge wala ci suuf eh, njabootu firawna armée firawna bi a neexoon duñ jóge misra waaye duñ la topp ah suñuy bàmmeele gi nii ñu nar la leen fekk ci kaw suuf si nii tuskare ñeel na la yow Moussa ah loolu ëpp na de dugal nga ñu ci alkaande tuskare ñeel na leen bu leen merloo yàlla bu leen merloo yonentam bi Muusa mi ngi ñaan boroomam mi ngi toroxlu ci kanam boroomam di ko ñaan yàlla dana leen yërëm ci ñaanam Muusa ah mbokk yi ndox ma jug na allahu akbar oh ndox ma jug na de ndox ma jug na de allahu akbar léegi nag nitu Firawna Muusaa yi ñëw nañ ba sës ci géej gi ñaara mën a am ñu dugg ci géej gi jar ci géej gi jàll walla ñu lab ci géej gi wala ñu dee ci soldaari Firawna moo tax ñu ni innaa la mudrakuun ay waaye agsi nañ sës nañ ci géej gi faaw Firawna danañ jàpp waaye Muusaa ne leen kalla inna ma'iya rabbi mukk mukk duñu mës a jàpp ndax maa ngi ànd ak sama borom loolu la ñu tudde ma'iyatullah maayatullah mbokk yi lu am solo la fii nag boo fi àggee ci martabatul yaqin da ngay lu leer ña doon wax démb jaaxle nañ de ñu ngi tàmbalee tur yàlla ñu wax ñu wax Moussa ni ko léegi nag dóoral sa yat wi ci géej gi bi nga sësee allahu akbar Moussa jël yat wa dóor ci géej gi lu géej gay def géej ga daa mi ngi mel ne ubbeeku de géej gaa ngay ubbeeku allahu akbar daa mel aw yoon ah lii Moussa am musaa daal di départ ak nitam jaar ci ndox ma léegi nag fu ci nekk mbooloo mu nekk rek fa ngay jaar mu ubbeeku lool ah Moussa ma ngay jàll ak nitam waaye naa ngi leen di topp nag waaye alkaane gaa ngay bëgg a ñëw ca ñoom kon yoon wa ubbeeku na ci géej mu saam bis bii la géej gi musa ubbeeku jant bi jàkkaarloog suuf si te baxru xalzum géej googu mooy géeju xalzum ah Moussa ba mu dóoree yan wa géej gi daal di ubbeeku ndox ma def ñaari pàcc ah yoon yu gudd ubbeeku Moussa yàlla ni ko départal dox dem Moussa départ aku nitam di dem ah waaye Firawna war na nag rëpptal na daa mel ni ñoom ña ngay ña ngay bëgg a ñoom tamit de ah ñoom tamit daa mel ni jaar nañ ca de bi amee mbokk yi Moussa ba mu demee ba jàll yan wi da ko naroon dóoraat yàlla ni ko bàyyi bul dóor bul dóor bàyyi leen bañ dugg topp yoon wa Moussa topp ci géej ga a ah, ma nga noon topp ca waaye am na lu xew de daa mel ni géej ga am na lum nar a def ndox maa ngay mel ni luy dajaloo waat allahu akbar dóor na yet wax oh allahu akbar ñëw leen gaaw Moussa mucc na ak ñam àndaloon rëcc nañ dem nañ jéggi nañu yegg nañ de ndox maa ngay ñëwaat de allahu akbar xooleen mbokk yi duusu géej gi ni mu réyee mel ni ay montagne kat taw del azim mel ni ay montagne jóge ca kaw di fuur ndax géej gi daal ubbeeku woon def ñaari pàcc la géej gi xóot-xóot yépp géej gi tëlluwaat jugaat ca kaw ay kilomètre fa séenee dajalowaat waaye daa mel ni gars yi ngay bëgg a dëpp de firaw naa ki mboolam ña ngay bëgg a dëpp waaye est ce ndax nañu rëcc yàlla nee na ma labal ñette des oh kéemtaan a ngi nii nag kéemtaan nag geneen kéemtaan waaye ñu bari ci ñoom ci euh, taxuñu gëm firaw naa ngi noonu jàkkaarloo mbir mi nag yàlla ku not la ci ñëpp ci kàttanam ku bëri yërmande la kon nit du firaw yaa ngi noonu di lab firaw naa ngi noonu di lab ñu ngi tàmbalee tur yàlla mi yërëm jaami ci àdduna ak àllaaxira ba lab ga dikkale firaw na muy doog a gëm naan gëm naa ni amul benn buur bu dul yàlla ji nga xam moom la waa banu Israël gëm man tey bokk na man Firawna tey bokk naa ci ñi gëm yàlla waaw est dana est-ce dana nangu kon Firawna mujj na yàlla waaye nag yàlla ni ko xanaa tey ngay ñaan tey ngay wax ni gëm nga waaye Haamaan ma nga yëgul li xew ma ngay ñaan ma ngay ñaanal Firawna danaa leen naa leen firil way gi muy way yow sa doom ji yow Haamun mu ngi noonu di dem ca géej ca jéeri ja yàlla na ko say bët aar ci lépp lu ñaaw yàlla na ko ci musal sa na sa loxo bi na ko aar yàlla na ko aar ko sàmm say tànk na ko topp yàlla na ko état bi aar sa loxo bi yàlla na ko aar ci lépp luy accam sàmm ko mu topp say tànk ba nguur gi dellusiwaat ci dellusiwaat ci pale bi faw dina dellusi ahan waaw dana dellusi de isaan ah waaye wi neex na nag de يا هارون ha man a way la waaye dama mel ni am na xibaar bu ñëw de ah sa doom jooju yal na ko aal yow yow amoon yal na nga ko delloowaat ci pale bi yal na ànd ak jàmm ak salaam gëm nañu sax dina ñëw ah, faw mu del si ñaan ga kon Haamaan ah, xamul li xew arrêté leen way bi yéen yëgu leen xew am na information mu dikk de Firawna lab na de loolu information bi lañ ko andil Firawna lab li ma wax li ma dégg nga wax ko ndax ak ngeen ci place ba ñaari soldaar yi fan daje Moussa ak Firawna ndax ak ngeen fayet hal raaytum masra al jaysh bi ajmain ndax gis ngeen armée bi fañ àgg ñoom ñëpp kenn muccul ci ñoom nga ni kenn muccu ci ñëpp dee oh. Oh. ndax gis ngeen néew firawna mu mu bokk ci ñi lab waaw waaw ram na de allahu akbar information bu di tontuma laa wax looloo am Firawna lab na ñëpp lab nañ kenn muccul chet ñaan nga doon ñaan léegi kon li am daal yëg leen ni Firawna dee na ah bi wéet na lan moo tax andiwu leen yaramu Firawna néew bi loolu tax bàyyi ngeen bàyyi ko géej gi jëli di ko lekk demal ci madame Bita jox ko xibaar bi dem na yebal labbe yëpp nañu dem indi yaram firawn nañ ko dugal ci dëkk bi ngir ñu man koo defar ñu taxawal ak néewam bi méngoog buur ah nañ ko indi parfon ko cuuraay ko defal ko li ñuy defal yàlla yi dee yëpp aha ñi ma war ñëpp wax leen xam informé kon man am na lu wàcc ci man day kon dootuma soxla nit ñi faw ma wéet kon samay buntu nañ ko tëj ba ma pare ci ñaan yi may ñaan ak tànnloo gi ma tànnloo sama yàlla kon faaw ma fàttu ji nag amatuma droit nekk ci biti kon yebleel daal nañ ma may ma fatu ñaan ñaan yi ma koy ñaanal ca ñu waajal jëmmam ji indil ma néew bi ah secret baa ngi noon day bàyyi leen xel na Firawna dañu ko woon lii mooy sama ndono mooy sama secret bu ko ubbi mukk lu dul ci kanam mbooloo nga koy ubbi lii mooy ndenkaane Firawna soxlaatuma dara soxlaatuma alal soxlaatuma dara ndono lii rek moo ma ñor mi ma dénk bi muy dem maa ngi dem wéet ak moom ah xool leen bu baax mbokk yi nag fan la jëm ca trésor na ba la jëm fa Firawna denc la jëm na da ko waxoon kees gi secret bi ci nekk kenn waru kaa tijji boo koy tijj na ko mbooloo fekke fii da la na daan làqatu fi la ay kunuusam nekk am alalam yépp fi la nekk waaye xamaan xam ngeen daa bëggoon alal kontaan na de ndeysaan tey nag léegi fi mu nekk damay xool bërëb bi nag lu fi nekk ah tey mu neex or or ay waay or a ngi waay dof na allahu akbar ay waay ngi jamaa ngi nii waay jamaa ngi nii waay seet ay waay tekki naa waay tey mu dee de bunt ba ah bunt ba tëju na mbokk kan moo tëj bunt ku bunt bi ku tëj bunt bi ku ku tëj bunt bi ah ay ndeysaan ana xaamaan man a kan ana xam foo nekk ana sa jaam bi <laughs> ñu xool ndax xaamaan dina génn fii nag mbokk yi ñu xool ndax xaamaan dina génn fii ay waay ñi may xoju waaye maa ngi bëgg a dee waay kaay la génn an naj bi an naj da mooy au awaay ah, ku may ku ma ku génne waay au secours mooy an najda ah am na ko yoo xam moom de daa mel ni Firawna feeñu na ko de allahu akbar na feeñu na ko mbokk ki moom Firawna lab na nag bàyyi leen ko xel waaye da koo feeñu tey déglu leen li koy wax bunt bi dañ koo tëj sa ginnaaw tëju na xamal ni nag tëj na la ba faaw dootoo génn mukk bul def lool la tutxaal bul jéem a tijji bul jéem a tijji bunt bi du tijjeeku yow xamaan soo nekkoon ku wóor ku dëggu dama bind samay ndénkaan ni ni lii ma jox ndénkaan li bu ko tijji min majlis wirasati al lu dul ñi ma wër samay ñi ma wër ñooñ laa waxoon nga tëj ko seen kanam nga làqatoo ak moom boo fekkoon da ko tëj danga nga àndoon ak ñoom ubbi ko ko ànd ak garñee kon di nga bàyyi ku ubbi lii lii du ñëpp koy ubbi waaye danga nga fàtt yow workat nga fenkat nga cey fii kenn mënu fee dugg lu dul lu dul madeere bi man maay Haamaan Haamaan a ngi de Haamaan buur bu mel ni man gis nga fi nga ko dugal ci ay ay géli mu dee ci kanamu ñu ay jaam yu yu néew fi nga ma dugal yaa ma doon yedd di ma xeet su ma bëggee rey Moussa rek yaa ma ci daan yaa ma ci daan poussé ci loolu ngay ragal li wàcc ci Qaaruun nga doon ragal mu dal ma waaw waaw waaw waaw Moussa yàlla Moussa ku am doole la waaye ngëm nga nag sama réeréeru daal moo ma tere woon a gëm moo tax dund gi yëpp dugg duguma gëm ma yàlla yi Moussa ji kon faaw rek ma des ko Moussa la ma dugg nii wóor ci woon dugg ndax yaa ma ci dugg xamaan li daloon Qaaruun loolu moo ma rey rek loolu moo lay rey fii alal jeeg or ji sa kaw la jël sa kaw lay daanu fekk loolu lu ñu bind la daane lii daaneel bërëb bi loolu dañ bind nañ yaa may dégg ah ab diggante bu gàtt mu yow xaamaan ci ngay mën a liir samay bayaan yi li ma doon leeral di ko mën a jàngat tuuti faw nga ja al nga jàngat samay samay wax ja doon bëgg a wax nga doog a alku kees gi dañu ko woon bu ko dindi lu dul ci kanam mbooloo nee na ko bu fekkoon dugg nga fekk ñi ma jege fii mën ngeen a génn fii sax ndax lii kees gi kenn du ko tijj waaye comme kon doonoo la mu bëggoon a làqatoog moom xoolal lu mu dégg rek day jàpp ne lu koy dimbali la ana nga man ki may dégg waxal ak man déggatuma subhanallah cey amaan ay na fu may jaar ba génn waay doo génn maa ngi mel ni kuy xoj sama bopp léegi ma dee ah mbokk yi xool leen day sukuraat xeer yaa ngi dal ci kawam lépp lu mus def dana ko fàttaliku allahu akbar xool leen fii fii la joxaloon fitna soxna Firawna